naam mbokk yi xam naa ne ñu bari danañ ne kii moom Apple Fuuta la dëgg la Apple Fuuta la waaye nag yàlla def na Sénégal folaa màgge diina nag ñun ñëpp ñoo bokk diina ji ndax ñun ñëpp yàlla lañu gëm te ñun ñëpp xam nañu ne bis dana ñëw danañu jóge fii ci kaw suuf danañu dee li may woote di laayee biir sama mbokk yi nga xamante ne dañoo woote ne ñun ay ibaadu lañu dañoo woote ne ñun ahlu sunna wal jamaa li may laayee biir mbokk yooyu su ngeen dee woo nit ñi woo leen ci yàlla nee na yenent bi nee na bu leen tudd benn tariix bu tudd benn tariixa bu sabote kenn ci li muy def yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dóor nañ ko dàq nañ ko màkka waaye fatuhu màkka bi mu amee yenent bi bi mu ñëwee lan la laajte yi maada tazunnuuna anni faailun bikum yéen lu ngeen yaakaar ne manit tey dinaa leen ko def ñu ne axun karimun ibnu axin karim yenent bi ne laa tasriba aleykum alyowm yaxfiru lakum yàlla may na ko doole moom it mënoon na leen dóor fayu waaye yenent bi dafa muñ képp kuy wootel yàlla fokk nga bari looy muñ nit ñi mënoo leen gindi ci benn bis nit ñi mënoo leen jubal ci at yenent bi 23 ans mu ngi woo fo yàlla subhanahu wa taala di wootal yàlla subhanahu wa benn bis Umar ibnul Xataab bi mu ne ci xalifa bi dafa ñaan yàlla mu ne yàlla bëgg naa nga may ma loo xamante ne lu ma wax nit ñi rek ñu nangu lu ma wax nit ñi rek ñu nàngu ko yàlla ne Umar loolu man mi sax awma ko man mi nga xamante ne maa bind sama jaam ñi awma ko ci ñoom loolu nag yow munoo ko am li may laayee biir sama mbokk ibaadu yi su ngeen dee woo nit ñi ci kitaab wa sunna bu leen tudd benn tariixa bu leen tudd benn tariixa nee leen yàlla nee na yenent bi nee na lii sunna la lii bida la jeex na ngeen taxaw ci waaye képp koo xamante ne toog nga di xas tariixa jàmbur di xas sëriñu jàmbur di xas déw kooku du la déglu te su boobaa fitna mooy gën a am ci diine ji ndax am na ñoo xamante ne tey duñu jullit dañoo war a dem woo ci lislaam koo xamante ne téeméeri at mu ngi dund ci dara ñaari fukki at mu ngi dund ci dara fukki at mu ngi dund ci dara yow nga bëgg a ñëw benn bis dindi loolu ci moom benn bis loolu munta nekk mustahil yenente bi 23 ans mu ngi wootel yàlla subhanahu wa nañu woote waaye nag ñu xam nan la ñuy woote bu ñu sabote kenn bu ñu sabote kenn ndax nit boo ko saagee rek dootul a déglu te boo ko saagee mu saaga la diina bi du diina saagante du diina xasalante yàlla nee ne yaa muhammad wa innaka la ala xuluqin azim yenent bi def nañ ko lu ne wax nañ ko lu ne waaye dafa muñ kon nag sama mbokk ibaadu yi nga xamante ne dañuy wootal yàlla yem leen ci yàlla neena na yenent bi neena na bu leen xas kenn bu leen tudd benn tariixa bu leen dugg détail ci benn tariixa ndax yàlla subhaanahu wa mooy gindi ku ko neex mooy bàyyi ci ku ko neex ci li mu ne te ñun ñii ñépp xamuñu nu ñuy mujje ki baax yàllaa ko xam nit bari na lu muy jaam yàlla di julli di woor mu dem dugg safara ndax yenent bi neen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innama al amalu bil xawaatim bari na fii ñu ñuy gis yaakaar na ñi ay kàccoor lañ yàlla may leen mujj ju rafet ñu dee dugg àjjana am na benn waay boo xamante ne jaamukat yàlla la woon dafa jaamu yàlla jaamu yàlla muusul mooy yàlla mu tas ak benn sàmbaabooy boo xamante ne daal naan biyeer def njaalo bàkkaar bu ne def na ko waa ji di ko tere di ne bàyyi lii lii baaxul lii baaxul lii baaxul ba benn bis mu tasak moom ne kii daal waat naa ci yàlla yàlla du ko jéggal yàlla ne man lazi man za lazi yataalla alayya an fulaan qad xafartuhu wa ahbabtu amaluk yàlla ne kan mooy oser di ne man duma jëggal diw duma ko jëggal ay bàkkaaram jëggal naa ko ay bàkkaaram yow mi wax loolu yàq naa say jëf te safara ngay dugg te foofu ngay des doo fa mus a génn kon nag mbokk yi nañ yërëm jaam yi nañu woote ci billatihi ahsan bu kenn sabote kenn bul xasu sëriñu kenn bul xasu tariixa kenn wooteel ni yàlla neena na qaala allah qaala rasulullah sallallahu lii daal sunna la lii daal bidaa la lii daal sunna lii contre sunna la bul tudd kenn yow daal sa baatu mbubb nga dagg nga teg waaye soo duggee di dugg di détaillé di wax kii di wax kii di wax kële fitna lay indi da daawa boobu su boobaa dootul am benn importance ndax dañuy woo nit ñi pour ñu dégluñu waaye bu dee dangay woote nit ñi di la saaga nit ñi di la daw boobu woote mbokk yi nañu changer système boobu ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñu sunuy bakkaar assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa